Euh, tey nag dañu am lu am solo lu ñu war a indi jigéen ñi su jigéen ñi la gën a sonal ak ñoom ñoo ñu gën a taxawu li ñuy waxtaan si muy acné muy les boutons d'acné acné nag boo ko déggee nekk na ay xeetu picc yoo xam ne dafay génn si yaramu nit mën a génn fu ne si yaram bi ñu mën a yaakaar sa kanam rek lay génn mais ni mën a génn sa kanam noonu la mën a génn si feneen si yaram bi acné nag lu ko indi mooy benn rupture buy am la parce que boo xoolee yaramu doomu aadama waxoon naa ko der dafa am lu ñuy wax ay pores ay bën bën yoo xam fa la ñax wi jaar di génn su pores yooyu tëjoo mën na di jafe-jafe ba indi li ñuy wax ay inflammation inflammation bu génnee mooy génn su forme de buton nekk bouton d'acné yooyu ngeen gis kon set dafa baax du ni nag dañ ni set du tee am ay ay ay acné non non parce que acné du yaram bu salte moo koy indi du karaw gu salte moo koy indi du sëy bu bëri moo koy indi du ñàkk sëy moo koy indi mais dafa nekk loo xamante ni ndono la am na une part héréditaire boo xoolee dafa am famille yoo xam dafa leen yàpp gis famille boo xam daanaka ñëpp dañ leen dal bouton yooyu kon am na une paire une part de d'hérédité muy paaru ndono Euh, ak ne nag dafa nekk loo xamante ni xëy na se gênant parce que waxuma dara mais picc bi des fois dina metti mais aussi dina ñaawal kanam boo tax gisee yéen ñi léeg-léeg ñi may maquillage pour léeg-léeg nëbb bouton d'acné yooyu moo tax kon nga xam ne aussi mi ngi am ñu muy gêné euh, am na yeneen cause yoo xamante ni foog ñu tudd leen muy xóot euh, muy stress stress moom nga xam ne dafa bari lu muy dal surtout nit ñi jigéen ñi ak jamono yi ñu toll ni jafe-jafe yi xalaat yu bëri yee yooyu yëpp laa day indi stress stress boobu dina génne léeg-léeg bouton d'acné yi ñi nga xam ne aussi dañuy nekk si jant bi ñoo xam dañuy liggéey ñoo xam dañuy def leneen mais exposé wu si soleil bi lu yàgg si jant bi dinay génn dag d'acné yooyu comme am na ñoo xam ne changement climat moo koy indi bu climat bi changé rek su mu jugee si tàngoor dem sedd brusquement wala ñu si tàngoor brusquement dina génn seen bouton d'acné yooyu saison bi moo leen koy génn bu fekkee dañ jugee si noor dem si nawet brusquement rek suñ jugee si beneen saison wala ñu jógee si nawet dem si noor dina indi bouton dag na si ñeen ñi kon loolu lu mat a xam la donc li am solo moo ñu fexe aussi wax ki ko am bala ñu ñëw si remèdes yi muy tegtal yu koy faj nan la war a dundee soit mu moytu ko wala mu prévenir ko wala mu wàññi ko mooy di wàññi maquillage bi aussi maquillage sax xëy na faar yeeg yooyu amul problème donc yenn euh, kii de nuit yi nga xam ne koy tëddaale aussi laal tëdd di waajal aussi yooyu amul solo sëpp mais li am solo mooy maquillage yi xaw a ànd ak diw yooyu ñoo indi problème parce que diw boobu mooy fermer pores yi te bu fer pores yi fermer woo rek mën na indi inflammation boobu kon ñu moytu produit yi nga xam dafa niin dafa ànd ak diw yooyu danay génne lii di bouton d'acné yi ñu wax ne aussi nañuy fexe ba muy lu am solo suñuy jëndati produit pour di ko diwoo ñuy xool di liir notice bi daf si am solo lu mel ni notice boo xam ne si gis lanoline da nga koy éviter baaxul mélistade aussi boo gisee da koy éviter donc mélistade boo aussi dafay indi jafe-jafe nay génne bouton dag na yi lorette wala lorite 4 bi aussi boo ko si liiree war nga ko moytu bokk na si yi nga xam ni day indi ay effet day indi ay problème fashion aussi acide D aussi dafay indi jafe-jafe donc yooyu boo ko liiree si étiquette médicament wala produit wax da nga koy diwoo surtout lait yi ñuy laal ak yenn maquillage yooyu na ngeen xam ni loolu boo ko booy bëgg boo bañee am acné da nga koy éviter boo amee acné di jël produit am yooyu aussi dafay yokk acné bi donc di lire notice aussi lu am solo la ñu fexe aussi ba cet gi aussi set dafa baax nañuy sangu ba set ndax set moom dina bari yu bari yoo mën na la ko fangal ñu xool aussi lan moo ñu jig parce que nit ki aussi booy jënd ay produits da ngay xool produit yi ni nga koy utiliser yan effet lay def ndax amul effet secondaire boo utiliser pour tamit di mélanger produit yi aussi parce que mélanger ay produits bokkul aussi bu yàggee mën na di jafe-jafe kon ak ne nekk na loo xamante ni aussi. jafe na pour ni damay Nous te parce que nous la ndono une part d'hérédité xamal ni soo amee si fay boo xam daf leen foog mu dal la lay conseil rek mooy xam ba yi a ko di éviter yenn exposition au soleil jant bi aussi yenn donc di seetlu aussi de faire le moytu xeetu maquillage yi nga xam dafa am diw soo ko def yàlla mën a dimbali bouton na yooyu wàññeeku su fekkee da ngay jënd étiquette aussi dangay ngay jënd produit liiral étiquette bi ba xool exactement yan jafe-jafe la mën a jur ndax loolu daf lay dimbali ba lu bëri du la dal si bouton acné yi ñu privilégier aussi le naturel xam nga naturel dara dàqu ko d'accord maquillage yëpp baax na mais naturel xam nga bu ngeen xoolee jigéen bu mel ni Gagny Gay tey jii nekk na ko xamante ni daanaka moom moom bu ñuy wax naturel si moom la sosoo ñu xëy na yi mën na bañ a ku mel ni maam Mama Farid exemple la donc ñooñu war nañ leen di wane comme exemple comme royukaay jigéen ñi di xool si ñoom euh, xam ni xëy na faaroog tegif yagak yi baax na mais di ko yemale aussi vraiment lu am solo la bari na aussi yenn produits chimiques yoo xam ne daf koy indi yenn xeetu médicaments yi donc booy jël médicament bu ma doon leen lire notice bi aussi dina tax nga xam exactement yan jafe-jafe la la mën a jural. ñu moytu lenn aussi di ko pincer maanaam boo amee acné boutons yi génn ngay jël di ko bës pour affaire yi génn loolu aussi day yokk léeg-léeg inflammation bi te mën na infection baaxul donc bouton d'acné nañ ñëw léegi si remèdes yi mais à part conseils yi. joo jëlee remède yi ñu la jox yàlla mën a dimbali ba bouton yi dañ te doo am benn jafe-jafe remède bi ñuy njëkk a joxe bala ñu ñëw si question yi mooy lii di tamaate tomate bi lu gaaw si dindi bouton dagg na la xëy na nit ñu ngi koy gis ni xamuñu ko mais lu si gaaw la soo ko daggee rek dagg si tuuti rek taf ko si bouton dagg na bi si kàttan yàlla daf koy delloo da xëy rek boo ko defee guddi boo tëddee boo xëy da gis mu dañ donc tamaate bi boo ko amee. diko dag diko taf ci bouton nak ni daf koy faj ci carton yalla li di vinaigre blanc aussi muy vinaigre bu weex bi aussi lu gaaw la pour ak acné mais bu baax da nga koy tooyal ak ben coton loolu coton tige diko si mancé bu baax ba sant ni mi ngi mi ngi dugg acné bi su ko defee ci carton yalla daf koy seeyal bouton acné boobu donc ñaar yi lu mata am lu mat xam la muy tamaate bi ak lii ñuy wax vinaigre bu weex muy vinaigre blanc suñu ñëwee aussi bala ñëw si question yi dañuy wax ne aussi am na saabu bu si baax muy saabu xabat sawda bi muy le savon de Nigel boo ko amee di ko sëlmoo aussi wala nga koy sango bu dee sa yaram la génn dana dindi bouton dag na yooyu kon ñu ñëw si question yi nga xam ne moom la ñuy posé ku njëkk ki def nii dafa am panaris daf ko yàpp daal dafa bari lu mu koy dal muy laaj lu koy faj muy bëy ñu koy wax bëy souvent si olof muy jàppale rek benn baaraam bi nga xam ne léegi da mel ni dafay am benn néew te metti trop nag muy panari boobu mais dañ ciy jox tegtal yu gàtt gaaw bu njëkk bi mooy soo amee alcool tegal alcool bi di si xooj sa baaraam si carton yàlla daf koy daf koy dindi daf koy faj si lu gaaw soo amul alcool te am limon aussi jël limon bi nga xar ko nga nga nga yatt ko ba mu def benn trou nga tàngal ko ba mu tàng si dugal sa baaraam si carton yàlla daf koy daal di faj beneen bi mooy garab gi ñuy wax ndetukaan ndetukaan moom boo ko amee xob bu tooy bi nga tëpp tëppal ko taf ko si euh, nu mu tëddee boobu si kàttanu yàlla yàlla lay dimbali ba mu mën a weer si lu gaaw kii dafay laaj dafay am ay mot do moom daal nee na bu liggéeyee ba wàcc sax dañ koy obligé day woo xale yi ñu taxawal ko digg ginnaaw gi ndax siggi du ko mën xam naa liggéeyu taxaw lay def wala muy toog toogaay bu yàgg. mot de nañ ko defal émission spéciale mais dañ koy jox en attendant lu gàtte gaaw mooy bu amee diwu xabat sawda daf koy nuggal nag ba mu xaw a nugg mu diw ko si digg ginnaaw gi. su ko defee bu ñu ko ko frottee ba mu xaw a tàng ñu jël kaani doom bi mooy kaani xeeñ bi tucc tuccal ko si daal di ritale loolu moom boo ko defee si kàttanu yàlla dana sax waaye boo si jugee dem liggéey boo jugee boo sangoo moom si kàttanu yàlla da nga wér foofu lañ jël tàggoo leen ñaanal yàlla beneen émission wér gu yaram ñu teewe